ñu ngi am daje ci sunu téere bi ñuy tuddee riyaadu saalihiin mooy jardin gaa yu baax ya sunu mbokkum jullit mu ñuy wax imam Nawawi bind ko dajale ci ay waxi borom bi subhanahu wa taala ak xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo xamee ne nii daanaka dana la tënkal lépp lu aju ci sa wàllu diine bunt biñ ci jël tey mooy baabu sidq mooy buntu dëggu di ñeenteelu buntu ci téere bi ñu war a jël bopp ba te mooy qaala allahu taala yaa ayuha allazina amanu ittaqu llah wa kunu ma asadiqin jeexal nañ baabu sabr bi ci tegul mooy baabu sidq mooy la nga xamee ne ni muy ak dëggu kon incha allah ñu déglu mbokk bi mu jàngal ñu ñu doogoo dem ci leeral gi
باب الصدق قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سوره التوبه وقال تعالى والصادقين والصادقات سوره الاحزاب وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم سورة محمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه
كن مني قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اي yeen ñi nga xam ne da ngeen a gëm ragal leen yàlla ca ngeen di nekk ànd ak ñi dëggu loolee ma nga ca suratu tawba wa qaala taala wassaadiqina wassaadiqaat borom baa ngi tagg ña dëggu ca góor ña ak ña dëggu ca jigéen ña wa qaala taala falaw sadaqu llaha la kaana xayran lahum bu ñu dëggu woon seen digganteeg seen borom day looloo nekkoon li gën ci ñoom loolu teg na ci ay xadiis ba ca jëkk mooy fal awalu an ibnu mas'ud an nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal jële nañ ci ibn mas'ud mu ne yonent bi alayhi salaam nee na inna sidqa yahdi ila albir dëggu day day jëme ci mbaax wa inna albirra yahdi ila aljanna ca mbaax day day jëme aljanna wa inna rajula la yasduqu xatta yuktuba inda allahi siddiqa góor day du deñ di dëggu ba baa ñu koy bind ca yàlla ne moom aju dëggu la wa inna alkaziba yahdi ila alfujur amma la nga xamee ne nii mooy ay fen mooy fen day yóbbu ca la nga xam ne mooy génnug topp wa inna alfujura yahdi ila alnaar amma génnu toppug yàlla day jëme nit ki sawara wa inna rajula la yakzibu xatta yuktuba inda allahi kazaba góor day du dañ di fen ba baa ñu bind ko ca yàlla ni kii kat ab fenkat la mbokk aaya yi ñu jàng bi ci jiitu sunu boroom def ni yéen jullit ñi ragal leen yàlla cay ànd ak ñi dëggu loole lañ cay dégge mooy jullit danga war a ànd ak ñi dëggu yow danga war a paase sax dëggu waaye danga war a dëggu ca moytu ñenn ñu dëgguwul ngay ànd ak ñu baax ngir dëgg googu sax ci yow loolu moo tax ba nit ku nekk war na xool ay àndandoom bari na ay xale yu dem prison la leen fa yóbbu mooy ànd ak ku def jéeya ba ñuy leen di jàpp fekk ma nga ànd ak moom ñu yóbbaale ko bari na ko wax wax ju amul fekk ñoom nekkal ñoo wax wax ji mu répété ko su ko defee kon yow jullit da nga war a paase sax dëggu mais da nga war a xool ñu dëggu ngay ànd ak ñoom xam ngeen ni aaya bii mi ngi wàccoon ci xadis buñ jàngoon ca gannaaw daloon kaab ibnu malik hilal ibnu umayya ak muraratu ibnu rabia di ñoo xam ne ba yonent bi alayhi salaam génnee ca xare tabuuk naafiq yi bañ a dem bañ ñëwee ba yonent bi ak i sahaabam ñëwee naafiq yi dañoo dem fenn lay ba génn ca waaye ñoom ñu daal di wax dëgg dëgg googee ñu wax yóbbu na leen ci coono juróom fukki fan waaye jëlal nañ ca xéewal goo xam ne ba ilaa yawmi diin nit ñaa ngi jàng alquran ci sabab boo xam ne ñoom ñoo ko sababoon borom bi naan wa ala salasati allazina xulifu xatta ida daqat alayhim al ard bima raxubat ila axiri al ayat kon loolu lan meloon ko may mooy dëggu dëggu googu nag mbokk day nekk ci ay wax comme ni muy nekk ci ay jëf ama aadama da ngaa war a fexe say jëf dëggu waaye it say wax doon waxu dëggu la am na ñoo xam ne ci seeni melokaan lañuy fene jëf ay jëf masalan ñëw ne man ab contrôleur laa fekk doo dara walla yu deme noonu ala kulli xaal sa biti dafa war a dëppoo ak la nga xamee ne ni moom mooy sa biir doonte ne dëgg googu mooy la ngay wax sa làmmiñ nay dëgg te dëppoog la nekk sa biir xol bu dee ne la ngay wax sa làmmiñ dëgg la ca yow dëgg googu gëmoo ko ca yàlla moom fet fenkat nga xoolal naafiq yi dañuy ñëw ci yeneen bi alei salaam ñu ne ko nashhadu innaka la rasulullah ñi ngi seede na yow yonent bi yàlla nga loolu du dëgg waay ah kay dëgg la waaye sunu borom mu ne wallahu yaalamu innaka la rasulu wax ne kon wax ji dëgg la waaye nag wallahu yashhadu inna al munafiqina la kaasibun waaye yàlla xam ne ne naafiq yi dañuy fen loolu muy wane kon fenkat bi même bu waxee dëgg loole mu wax ak fen lañ koy bind ci yàlla subhanahu wa taala di mbir boo xam ni ku ni war na góorgóorlu bàyyi xel ci loolu sunu boroom it wane ni dëggu googu góor ak jigéen a ci yem saadiqina wa saadiqaat mi ngi leen di waajal pay yu màgg bu dee ne jigéen bu dëggu gis nañu ne ku mel ne Maryaama sunu borom moo ko seedeel nee na Isaa de yonent yàlla la waaye wa ummuhu siddiqa amma yaayam ja Maryaam mooy dafa dëggu woon sadaqat bi kalimaati rabbiha wa kutubi mooy dëggaloon na kàdduy borom bi ak i téeréem ca mooy gëm ko jëfe ko ci loo xam ne lépp la sellal loolu it sunu xeet bi bari na siddiqin yu ci nekk doonte ne kañ ko doon màndargaal mi ngi dund mooy abu bakarin siddiq yonent bi tuddee ko ko sahaaba yi di ko woowe noonu mu sax ba sunu jamonoy tey doonte ne ne sahaaba yi ñoom ñépp ay siddiquuna la ñu woon loolu muy wane ne jullit war naa góorgóorlu jéem a bokk ci ñooñe nga xam ne dañuy dëggu borom bi nag subhanahu wa taala ni dëgg lu metti la waaye foo ko defee rek la nga cay wittee la muy meññ loolee yiw rek lay doon moo tax mu ne falaw sadaqullah la kaana xayran lahum heure boo xamee ne nii naafiq yi di lay day dañoo dëgguwal seen diggante ak seen boroom loolu moo nekk la nga xam ne mooy yiw looloo tax benn waay ma ngay wax ak mbokkam naan ko waaye boo gisee ñuy fen dañoo bëgg a mucc mu ne déedéet lay mucc la rek moom mooy dëgg lay mucc la mooy dëgg ci xadis yi ci kanam day wane loolu loolu mbokk mooy alquran amma bu ñu delloo ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu masud mooy wax ni yonente bi alayhi salaam nee na dëgg day day yóbbu ci mbaax te boo demee ci beneen xadis ma nga commencé alaykum bi sidq maa ngi leen di dénk ngeen di dëggu lu tax mooy dëggu day yóbbu ci la nga xamee ni nii moom mooy ak mbaax ca mbaax day yóbbu aljanna loolu mbokk mi wane ne àjjana dafa am yoon dafa am moyen yu la fa yóbbu looloo tax jullit di war a ñaan yàlla yàlla yàlla nag ma may aljanna ak lépp lu may jegeel aljanna ci wax ak jëf loolu rot na ci ñaanu yonente bi alayhi salaam rawatina ci boy taaya allahuma inna nasaluka aljanna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal yàlla na nga may aljanna ak lépp lu ma koy jegeel ci wax ak jëf musul ma ci sawara ak lu may jegeel sawara ci wax ak jëf loole nag bokk na la ci gën a màgg mooy nga dëggu nit ki bëdëgoo rek baax na dootul nangoo sàcc dootul nangoo wor dootul nangoo wóoruj ndax day bëgg léppam nekk dëgg su ko defee nag soo baaxee loolee yoonu aljanna la inna al abraara la fi naim gaa yu baaxee ci xéewal yi lañ nekk mbaax mooy lépp loo xamee ni nii dafa nekk njëriñ booy faggul doomu aadama yi waaye doon loo xamit ak laa biir nga sa diggante ak la nga xam ne nii moom mooy sa borom borom boobu subhanahu wa taala gis nañu nee na nit ki yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nit ki du deñ di dëggu di dëggu ba mujj sunu borom ne nañ ko bind ci ña nga xame ne nii dañoo nekk ay siddiq su ko defee waa ji turam dañ ciy dolli loolu Moustapha Siddiq Fatima Siddiqa lu ko waral dëggu gam doon dëggu te loolu it la yàlla ne ñooñu dëggu ñooñu gaa yi baax yooyu ulaika ma allazina an'ama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa xasuna ulaika rafiqa ñi baax ñi réussir dëgg mooy ñi nga xam ne ëllëg bu ñu dekkee dañuy ànd ak ñu yàlla xéewalal ñu nekk ay yonent te mooy grade bi gën a kawe bu doomu aadama di am ci kaw suuf kenn du ko faggu yàllaa koy nome ku ko neex ka ci mujjoon mooy sunu yonente muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma as-siddiqa loolu moom nit ki mën na koo faggu ci jàng xam-xam ci dëggu sa digganteeg sa boroom dëggu digganteeg doomu aadama yi ba baa yàlla di la yeggale ci grade boobu loolu mbokku bi nga xamee ni it am na noonu la jullit war a moytoo fen moo ko fen wax luy fen dara gënul garaaw loolu fen bokk na ci it ba ca gën a garaaw mooy fen lekk alalu nit bokk na ba ca gën a garaaw waat ci fen ya nga xam ne danga koo fen moom la ñuy tuddee yaminul xamuus waat ci fen indi turu yàlla ba pare fen muy gravité ci kaw gravité ndax jullit dañoo war buñ ko waatalee ci yàlla mu gëm loolu nag di mbir boo xamee ni nii kon boo ko boolee fen ba pare waat ci yàlla dalay nuural ci biir sawara mi ngi noonu yonent bi alayhi salaam nee na nit ki du deñ di fen di jël aqi mbokkam ba baa bis buy dajeeg yàlla day fekk yàllaa ngi mer ci moom yàlla na yàlla musal ñu dajeeg moom fekk ne dafa mer ci ñun am na it ñoo xamee ni nii ñi ngi ci musiba bu rëy xadis bi ku ko mënoon a jokkalee ñoom kuccaag ñu deme noonu xaw ma nuñ tudd sax mi ngi noonu ca mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na fa waylun lilladi يحدث فيكذب ليدهك به الناس alkaa nga ñeel na waajoo xam ne nii dafay nekk di wax ci wax yi mu créé ay fen ngir nit ñépp di reetaan yeneen bi mu ne fa waylun lahu thumma waylun lahu alkaa nga ñeel na kooku gannaaw ba alkaa nga ñeel na kooku donc loolu ñu tuddee caricature ay maye ay théâtre nga xam ne fen rek la loolee mbokk même bu ko nit ñi nekkee gërëm ko it xamee ne lu rëy la ci yàlla loolu it yow mu lay wan ne yow julit koo xam ne la muy def rëbbum yàlla ma nga ca yow julit wuroo bànneexu ci loolu wala nekk di seetaan loolu di kontaan ci loolu abadan ndax loolu muy def dafa xaraam wuroo ci kontaan kon loolu itamit ñu bàyyi ci xel bu baax lépp loo xam ne wax la ju dëppoowul ak dëgg julit dafa war a moytu loolu allahuma lul ruxsa ya ca yonent bi alayhi salaam may mooy bu dee dañoo nekk ci xeex bu dee nekk ci xeex xam nañ ne xeex fokk naxante la mi ngi noonu alxarb xudua naxante la kon la ngay wax say noon loole da ngay gis ni ba jekku leen islaam bañut loolu amma wor bu dee wor moom islaam du nangu wor masalan si ñeenti ngeen pacte ne un mois duñ ci xeex tant que jeexul amoo droit war war ci abadan ñaareel bi mooy heure boo xamee ni nii yaa ngi defar diggante ay nit loolu it da ngay gis ne borom xam-xam yi may nañ ci ak yombal ah yow day diw yi du ngeen tuddante waaye moom day lu baax rek lay wax ci yow ah moom day nangam ak i nangam ba baa seen diggante defaroo loolee da ngay gis kenn du ko tudde ay fen bokk na ci it wax ay wax yu neex sa soxna wax joo xam ne nii du dëgg sax waaye yaa ngi ci jublu kontaan loo ko jubluwoo ci lor ko jubluwoo ci jël ak xam jubluwoo ci dara yaa ngi jublu kontaan loo ko loolu da ngay gis ne yooyee moom dara nekku ci mi ngi noonu comme na yonent bi alayhi salaam waxee ne Ibrahima day fen na ñetti fen waaye loole da ngay gis ne mi ngi ko fenee ca la nga xamee ne nii mooy aqu yàlla ndax ibrahima moo dajj xërëm yi gaa yi ñëw na ku def lii mu ne xërëm bu mag bi moo ko def li mu wax amul mais lan la ci jublu mooy yee seen xel ibrahima nañ dem ci àll ba feet ga ñuy def mu ne leen inni saqim damaa feebar lu mu ci jublu mooy ñoom ñépp ñu dem ba mu jekku xërëm yi ànd naag soxnaam jaar biir égypte garde yi dajeeg moom ki nga àndal ku mu doon mu ne sama sœur la ndax boo xool sama jabar la dañ koy rey yooyu yépp li ngay gis ne kon bu dee yu demee noonu nga xam ne da nga cay dàq lor wala maslaha boo xam ne nii day dellu ci màggaayu lislaam loole da ngay gis ne nekkul lu ñu bañ yonent bi alayhi salaam kon loolu la wax ni nit ki dana dem a dem ba mujj aw turam ñu dolli ca fenkat mooy diw fenkat et pourtant loolu malaaka yi dañ koy def waaye xattaa ñun nit ñi léeg-léeg nga dégg benn waay bu ñu tudd ci mbooloo ñu ne ah kooku day ku dëggu la léeg-léeg nga dégg ku ñu tudd ci mbooloo ak cim ku ko wax diw kooku lu mu wax day fen gis ngeen yàlla def ko ci xolu nit ñi cim kooku lu mu wax day fen loolu nag mbokk da ngay gis ne doomu aadama bi war na jéem a tarbiya boppam jéem a naxanteeg bakkanam ba baa lépp lu muy wax lépp lu muy jëf mu doon loo xam ne lu dëggu la yal na yàlla jàppale ñu ca
محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث صحيح قوله يريبك ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه
حديث جروم فكك جروم تتربي di ñaareelu xadis ci baabu sidq mi ngi jóge ci abi muhammad alxasan ibnu ali ibnu abi talib ki koy nettali mooy xasan doomu abi talib radiallahu anhuma qaal حفظت من رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك bàyyil lépp luy sikk sàkk jëm ca la nga xam ne amoo ca benn sikk sàkk fa inna sidqa tumanina wal kaziba riba la nga xam ne mooy dëggu day loolu ak dal la waaye fen day ak sikk sàkk la mi ngi noonu Tirmisi solo na ko xadis bu wér la moom lay wax ne it ay qawluhu yaribuka ay huwa bi fathiha wa dammiha loolu affaire yu nahwu la mooy bu la neexee nga ne yaribuka bu la neexee nga ne yuribuk ay utruk ma tashukk fi xillihi wa adil ila ma la tashukk fihi ca mooy bàyyi lépp luy sikk sàkka ci daganam dem ci loo xam ne amoo ci benn sikk sàkk mbokk lii nga xam ni mooy sunu xadisu ñaareel bi boo delloo ci arbaina bu nawawi imam nawawi téere bi xawma ñaata junni xadis la ci dajale waaye am na beneen téere bu mu tënk boo xam ne ñeen fukki xadis la ca la ca boole téere bu siiw muy wane na kon xadis yooyu xadis gënu koo am solo te mooy xadis yi nga xam ne day tënk ab tënk la nga xam ne bu ko jullit xamee diineem dana ñoŋ te bokk na ci loolu xadis bi nga xam ni xasan bi ko nettali mag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam presque ay huit ans la ñuy dund gis ngeen loolu it muy wañe ne xale yi dañ leen daan teel a intéressé ci xam-xam mu ne man day wattu naa ci maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jur yaayam Fatima wattu naa ci sama maam yonent bi alayhi salaam mu ne bàyyi lépp looy sikk sàkk ca nga dem ci li nga amul sikk sàkk loolu mën na yaatu masalan tey jii sobe tuuru na sa yére xamoo ban côté la ci tuuru li gën mooy fóotal yére bi yépp bu ko defee doo ci am benn sikk sàkk waa ji nga xam ne tey da doon julli ba mu jëmul sikk sàkk man maa ngi troisième rakka am maa ngi deuxième rakka su boobaa li ko wóor mooy julli na deux rakka la muy sikk sàkk mooy ndax am na troisième am déet bàyyil troisième boobu ngay sikk sàkk considéré ne yow yaa ngi nekk sa biir deuxième rakka lépp loo xam ne ah gis nga ko nga bëgg caa dugg lekk la jëf la ngay sikk sàkk lii dagan nam xaram na avant ngay am borom xam-xam bu la leeralal ne la lii dagan na wala xaram na bàyyi ko bàyyi ko nga dem ci loo xam ne amoo ca benn sikk sàkk ca mooy mi ngi noonu lépp luy sikk sàkk rek bàyyi ko ca sax ca la nga xam ne wér na loolu it day wane ne même boo demee ci attekatu yéefir yi sax mooy lépp luy dut lépp luy sikk sàkk rek day profiter kañ accusé mooy nit ki bala ñu ko condamné ci dara dañuy am preuve yu leer na moo ko def mais tant que doute mi nga am tant que sikk sàkk mi nga am rek loolee da ngay gis ne da koy protéger di mbir boo xam ne it tamit bala ngaa doog ci ne diw moo sàcc sama nangam diw moo def sama nangam ay sikk sàkk rek bu mu tax nga doog ci loolu na nga dem ba am ci preuve yu leer yeneen bi alayhi salaam taxaw naa kenn ci sahaaba yi na ko ndax yaa ngi gis jant bi mu ne ko waaw waaw mu ne ko booy seede na seede bi mel nii mooy seede na seede bi mel nii mooy na la leer mais lépp looy sikk sàkk rek bàyyi ko gis nañu itamit ne mu ne li nga xam ne moom mooy dëggu ca mooy bokk ci sunu bunt bi lool day ak ndal xel la am maa fen sikk sàkk la ca mbokk dëggu boo ko xisee ba def boo xisee ba wax dëgg rek sa xel day dal ca mooy dina libre nga da ngay tranquille parce que wax nga dëgg jëf nga dëgg wala fi dañ naan boo waxee loo xam def loo xam boo tëddee boo tëddee nelaw amma la nga xam ne nag mooy wax ay fen kii wax ak nit ñi di fen intérieurement day jàpp nit ñi gëmuñu ko moo tax toujours day waat waat yu dul jeex am déet yeneen bi alayhi salaam mu ne laa tuute kulla xallaafin muhin aw sunu borom moo ko wax bul topp aji waatkat te mooy koo xam ne ni li muy wax dalay waatal billaay walaay taalaay rek moytu ko ndax la mu fas ci biir xam ne du dëgg day jàpp ne yu xam nga ne du dëgg moo tax mu bëgg waat waat ba nga gëm ko loola tax mu ne am maa li nga xame ne nii moom mooy fen yooyee dafa nekk la nga xam ne moom mooy ak sikk loolu it bunt la buy dolleeku ca baabu sidq mi ngi noonu
أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه
xadisu ñetteel bi di juróom fukk ak juróom benn ci téere bi an abi sufyan saxr ibnu xarb ñi ngi koy jële ci abu sufyan fi xadisihi tawil fi qissati hirqal ci xadisam bu gudd ba ca qissa hirqal ba nekkoon booru room qaala hirqal fa maaza ya'muruna waaw yonent biyo bu nga xam ne daa feeñ ci yéen lan fa maaza ya'murukum lu mu leen di digal ay yaani nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaala abu sufyan qultu yaqul ubudu llaha wahdahu la tushriku bihi shay'a moom day danaan jaamu leen yàlla moom kese bu leen ko bokkaaleeg dara watruku ma yaqulu abaukum bàyyi leen lam doon wax seen bàyyi wa ya'muruna bisalaati wa sidqi wal afaaf daf ñuy digalit nañ julli nañu dëggu nañu fegu wa silla dañuy digalit ñu jokk sunuy mbokk mi ngi noonu mbokk xadis bi ki nga xam ne mooy xirqal nekkoon benn buur boo xamee ni nii amoon na doole ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkoon yonent bi bindal ko leetar ne ko kaay tuub dugg ci biir lislaam ba loolu amee moom mu daldi jaaxle daldi ne nañ dem ci dëkk ba xool ndax amuñu ñu dëkk waa Makka ñu nekk fii biñ ñëwee yàlla def ñu fekk fa abu sufyaan mi nga xam ne mooy buuru makka léegi hirqal woo ko daal di woo ñi mu àndal ne leen kii dama koy laaj ay question maa ngi leen di wax bu fenee rek na ngeen ko wax day fen léegi commencé laaj abu sufyaan waaye yéen dafa am yonent bu feeñ ci yéen histoire ba gudd na comme ni ko borom téere bi waxee laaj na ko yu bari mais bokk na rek ci fin bi mu ne ko waaw moom lan la leen di digal abu sufyaan ne lum ñuy digal booba abu sufyaan yéefar la mu ne léegi ñun nañ jaamu yàlla bu ñu ko bokkaaleeg dara te mbokk loolu da ngay gis ne mbir la buy diis ci nit ñu bari benn waay tey na doon Sénégal wala feneen da ngay gis ne moom gëm na yàlla d'accord waaye waatam yépp ci keneen ku dul yàlla la barkeelu lépp ci keneen ku dul yàlla la heure bu jàqee keneen ku dul yàlla lay woo heure boo ñëwee na ko yii nga def bàyyi ko yemal ci yàlla kese loolu du koy yéem loolu it mooy yéemal abu sufyaan mu ne nañ bàyyi suñu xërëm yu maam yi nañ jaamu yàlla bu ñu ko bokkaale ak dara gannaaw bi mu ne lépp lu suñu maam yi nekkoon ci ceddo nañ ko wan gannaaw gis ngeen loolee la ñuy sant gannaaw ba mu ne ko bokk na it loo xam ne nii danañu ko sant ba tey nee na ñun nañuy nekk di julli nañuy doon ñoo xam ne ñu dëggu lañu ca loolu mooy jubluwaay ci sunu xadis bi mbokk julli mi ngi noonu diine bu amul julli du diine arab yi dañuy wax muslim di wax mu'min kaza mais ñi gën a mën a firi ah diine yàlla ji mooy wolof yi ndax wolof yi dañ naan jullit la am déet gaa yi jullit kay mooy kuy julli am déet kon ku dul julli nuñ ko mën a tudde jullit loolee mbokk mbir la boo xam ne bu jara bàyyi xel la su ko defee diine bu amul julli du diine gannaaw ba itamit nee na nañu dëggu lu ñuy wax na doon dëggu loole kon la yonent bi alayhi salaam doon dégle as-sidqa muy loo xam ne ni dañ naan garabam day lu wex la waaye meññetam lu neex la dëgg léeg-léeg bi nga koy wax sunu borom ma ngi koy wax ci téeram bu tedd ba ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما su ngeen demee ci ay atte da leen wax dëgg même buy dal seen kaw même bu dee boo waxee dëgg gi da ngay condamné sa sa wayjur même bu dee da ngay condamné pauvre bi wala da ngay condamné ri- ki am loolu lépp xam ne yàlla gën a yee ci ñoom kon wax ko léeg-léeg dana metti waaye lu mu yàgg-yàgg fin ba ay meññetam lu neex la amma dañ ne fen garabam lu neex la waaye meññetam lu wex la ñu ngi noonu tey boo demoon masalan état yi lu mel ne États-Unis li ñuy saay saay saay saay bokk na luñ dul tolérer doomu aadama bi mooy fen muy fen heure buñ gisee ne président bi fen na pare nañ ci moom képp koo xam ne dañ la war a fal ñu gis ne mës nga fen pare nañ ci yow def délit États-Unis moo gën a woye fen loolee di mbir boo xam ne ah dañu ay yéefar lañu ana kon ñun l'islam daf ñuy digal ne nañu dëggu gannaaw ba dañuy digal al afaaf afaaf mooy feggu ci lépp lu yàlla araamal ci yow donte ne buñ ko tënkee ci biiri wax ñu ngi gën a firi feggu ci wàllu njaaloo feggu ci wàllu njaaloo waaye it feggu ci alali jàmbur ñu ngi noonu bokk na ci it feggu ci doylu dala yàlla wërsëgal nga doyloo ko bañ a nekk di wër di laaj nit ñi yooyu yépp da ngay gis ne nekkul ak fegu loo dul ne loo xam ne lor dëgg-dëgg la jullit wurul dem ji def loolu da ngaa war a doylu ca la la yàlla wërsëgal yàlla faaf gannaaw ba it la nga xam ne mooy sila jokk say mbokk jokk say mbokk loolu yonent bi alayhi salaam moo ñu ko digal ku jokk say mbokk yàlla jokk la ku dog say mbokk yàlla dog la mbokk yooyu nag naka yàlla tudde jokk mooy ku nekk ka la gën a jege ka la gën a jege noonu lañ koy jokkee jokk boobu it bokk lu ci borom xam-xam yi wax mooy day uute diggante nit ak nit am na koo xam ne lañ koy jokkee mooy jël sa alal di ko dimbali ndax dafa ñàkk am na koo xam ne soxlawul sa alal waaye li mu soxla mooy nga sol sa dàll ñëw di ko nemmeeku mi ngi noonu kee la nga xam ne moom la soxla mooy dimbali ko ci ab feebaram kee la mu soxla mooy kaza wa kaza day safaanoo ci jamono bu nekk day safaanoo ci nit ñi ku nekk rek yaa war a xool la nga xam ne mooy defar seen diggante nga jéem a jëflanteeg moom ci loolu lii kon mbokk dañuy gis ne yonent bi alayhi salaam ba muy tàmbali wooteem bi un bokk na ci la mu daan digle sahaaba ya mooy la nga xam ne mooy ak dëggu alhamdulilah abu sufyan bi bi muy wax li yéeféer la woon waaye yàlla muy baaxee ku ko neex avant yonent bi di ubbi màkk tuub na dugg ci lislaam ba fi sabilillah la mujj faatoo radiallahu anhu mi ngi noonu
ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم
حديث بي تيغو أنا أبي ثابت وقيل أبي سعيد موي صحابي بوبو أمنا يبني أبي الوليد على كل حال سهل ابن حنيف kooku bokkoon na wa huwa badriyun bokkoon na ñu fekk xare badr anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal man sa'ala ta'ala shahadata bi sidq ballaghahu allahu manazila shuhada sunu yonent alayhi salaam nee na képp ku ñaan yàlla dee ci yoonu yàlla muy shahada ca mu dëggu ci sa xol yàlla yóbbu la ca palaasu ña nga xam ne dañoo dee ci yàlla dañoo dee ci yoonu yàlla wa in maata ala firaashi doonte ne dafa faatu ca la nga xam ne mooy kaw lalam mbokk doomu aadama bi xam nañ ne dee moom fokk dee am waaye bokk na lu yàlla santaane ñu jox ko ko bokk na ci loolu sunu temps yàlla na yàlla nangul ñu heure bi mënoon nañu dem ci leneen mais yéen a ngi bàyyi seen temps toog ci néegub yàlla bi di déglu waxi yàlla ak waxi yonent yàlla bokk na ci sa alal nga jël ko joxe ci yàlla tax waaye bokk na la gën a màgg lu doomu aadama da joxe muy ak ruuxam am déet loolu sag ruux kon koo xamee ne nii jël na ak ruuxam joxe ko ngir diine yàlla ji jëm kaw ñooñu mooy suhadaaw yi jullit nag dafa war a ñaan yàlla comme dee munta ñàkk heure buy dee mu dee fi sabilillah loolu nag xam nañ ne ñépp mënuñu koo am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne koo xam ne ñaan nga yàlla dee ci yoonam ca muy dëggu ci yow même boo dee sa kawlal ëllëg bu yàlla dee dekkal ñi dee ci yoonu yàlla dana la boole ci ñoom yàlla na yàlla boole ñu ñi dee ci aw yoonam te yàlla dëggal ko suñ biir xol yi loolu mbokk mooy ashuhada mooy ñetteelu garaat ci lislaam garaat bi jëkk mooy annabiyin ñi yàlla yónni benn bi mooy siddiqin ñu doon wax sànq ñetteel bi mooy ashuhada mooy ña nga xam ne dañoo dee ci yoonu yàlla donte ne am na ñu koy firee borom xam-xam ya waaye shuhada mooy tamit ñi dee ci yoonu yàlla pour kaddu yàlla jëm kaw ñooñu ñooy vrai shahid am na nag ñu ñu yóbbu ci grade boobu ci ngëneelu yàlla am na lu jege juróom-ñaari nit yonent bi alayhi salaam ne yowmal qiyaama dañ leen di tuddee shuhada te sax deewuñu ci yoonu yàlla bokk na ci kan mooy ki nga xam ne yàgg na koo ñaan yàlla yàlla dogalu ko mu mujj dee ci kaw lalam bu ñu la laajoon le plus grand général d'armée bu l'islam ma sa xam mooy kan Khalid ibn Walid Khalid ibn Walid moom la yonent bi tuddoon sayfullah jaasi yàlla ji kenn mësul gis ko mel na moom amul benn jihaad boo xamee ne nii lu néew lu mu dugg lislaam budul na bu demee moo ko jiite dañ ko doon tëdd ne rajulun laa yanaamu wala yatruku ahadan yanaamu du nelaw du bàyyi ku nelaw gis ngeen mais ci kaw lalam la dee radiyallahu anhu ci kaw lalam la dee mi ngi moom doon wax naan sama yaram bi amul fenn foo mën a teg sa loxo ci kaw ba ci suuf lu dul jaasi mës na fa dugg wala xeej te tey maa ngi dee sama kaw lal kooku fokk yàlla yëgu ko ci manazil shuhada bokk na ci ñooñu ba tey waaju jigéen boo xam ne da doon am doom farfaatu bokk na ci ba tey koo xam ne dañ koo agressé rey ko koo xam ne da doon xeex ngir alalam doon xeex ngir défendre njabootam ñi ngi noonu koo xam ne dafa dee ci peste waa ji nga xam ne dafa dee ci tremblement de terre ki dee ci lakk ki dee biir géej kaza wa kaza yooyu yépp yonent bi alayhi salaam tudd na leen ay shuhada doonte ne ne am na jëflante spécial gu ñuy jëflante ñoom gu autoy ak shuhada wu yële xëy na loolu yeneen bind la ala kulli xaal lii daf ñuy wane ne doomu aadama bi la yàlla bëgg ci moom muy dëggu contraire ba jàngoon nañ ko ca bopp téere ba su ngeen ko fàttalikoo bokk nañu yàlla di jëkk a tàbbal sawara waliyaasu billah mooy waa ji dee fi sabilillah yàlla dekkal ko yowmal qiyaama malaaka yi laaj ko waaye yow day doon nga jihaat léegi lan nga jublu woon ci loolu mu ne man dee jihaat naa ba dee fi sabilillah la ma ci jublu woon mooy kaddug yàlla jëm kaw yàlla na ko da ngay fen malaaka yi na ko da ngay fen lan nga jublu woon mooy ñu ne ñépp ne yow jàmbaar nga loolu moo ci sa pay kooku sawara la jëm waajee moom musul jël jaasi musul jël char de combat musul jihad waaye xolam mi ngi dëggu ci ne bis bu jihad amoon bu sharia nangu danaa ca xeex ba sama bakkan des ca kookee même bu dee ci kaw lalam yàlla boole ko ca garat boobee mi ngi noonu
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل
xadis bi nga xam ne moo ci tegu di juróom fukk ak juróom ñett ci téere bi abi hurayra moo koy nettali قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم benn yonent ci yonent yàlla yi daf doon jihaad fa qaala li qawmihi avant muy départ mu wax waa xeetam laa yettabi ani rajulun malaka budaata imra'a bu ma topp mukk góor goo xam ni daa moom la nga xam ne mooy payu jigéen lan la ca namm mooy day doog a takk ab siit wa huwa yuridu an yabniya biha walamma yabni biha mi ngi ko bëgg a céetal ay ànd ak moom te céetalugu ko ku mel noonu bu ma topp wala ahadun bana buyutan lam yarfa suquufaha képp koo xam ne it dafa tabax kër ca yëkkateegul la nga xam ne mooy plafond ba wala ahadun ishtara ganaman aw xalifaat wa huwa yantazuru awlaadaha bu ma topp kenn koo xam ne daa jënd ab jur gu ndaw muy xar ak bëy aw xalifaat wala boog ay gileem yoo xam ne dañoo ëmb wa huwa yantazuru awlaadaha fekk ma ngay xaar ñu wasin ñooñu ñi ma wax ñëpp bu ma ci kenn topp fa gaza fa dana min alqarya sala min alqarya salaat al ars salaat al asr aw qariban min zalik ba muy xeex ba jege ci dëkk ba mu war a xeexal mu daal di jege la nga xam ne mooy jullig mu jege fa ca jullig tàkkusaan wala lu jege loolu fa qaala li shams mu daal di joxoñ jant bi ne ko innaki ma'muura yow jant dañ laa jox ndigal de wa ana ma'muur man dañ maa jox ndigal allahumma ahbisha alayna ay yàlla fegal ñu jant bi téyal ñu ko ci ñun mu bañ a soox fa xobisat xatta fataxa allahu alayhi jant ba noonu lañ ko téyee ba bàyyi yàlla di ko ubbil dëkk ba fa jama al ganaim mu dajale mboolem ganaay ngañaay yi ñu fa gañe fa jaat yani naar noonu la ñëwee sawara ba li taakulaha ngir mu lekk ko fa lam tat amuha sawara bi lekk ko fa qaala inna fiikum xulul mu ne am na ci yéen day la nga xam ne mooy aji sàcc fal yubayi'ni min kulli qabilatin rajul nama jaayante képp kenn ci yéen ah bépp góor ci bépp giir ci yéen nama benn góor jaayante ak man kon mbokku xadis bi yonente bi alayhi salaam moo koy nettali benn yonente la bu war a génn dem jihaati avant muy dem mu ne yéen ñii di armée bi koo xam ne takk na ab séet te jotagul a ànd ak séet bi bu ma topp te xam ngeen mbokk doomu aadama mi en général su dee dafa bëgganteeg jigéen bañ may ko ko muy xalaat day ànd ak moom bu jógee ci jëm ci jihaad jàpp ne mën naa faa dee ci du ma ko xam loolu mën na am lu mu def ci xolam gannaaw bi it kër goo xam ne defar nga ko ba dara de suludul nga teg puj bu ci kaw pour dëkk sa xol day nekk ci loolu wala nga jëndoon ak jur ñoo xam ne ñi ngi dem bay waaje wasin loolee nga xam ne arab yi dañu ko daan toppatoo rawatina gileem ya sa xol day nekk ci loolu mën a ñoo ñëpp jéggal naa leen buñ ma topp lu waral loolu mooy kii jihaad fi sabilillah dafa war a ànd xol boo dal ne dee ci yoon beeg ni bis laa yemale muy ixdal xusna yey ni ñaar ci xéewal yi dee fa ak ni bisi laa yemale kepp bal ñu bari sax dee fa moo leen di gënal ca loolu day waññe ne mbokk doomu aadama bi bàyyi ay responsabilité yu bari day tax fit wa nga waroon a am doo ko am muy fàttali sunu benn waay dafa doon dawalal benn capitaine tubaab nee na ñu ngi dugg ci benn jips bi ñuy dë- duggee ci jips bi mi ngi dugg rek di accélérer cent trente cent quarante ba mujj felt bi tubaab bi yoroon naaw nee na ñu arrêté retourné ba jël ko mu ne ko waaw diw tu es marié mu ne ko non non mu ne ko sans enfant mu ne ko non non mu ne ko jox ma volant bi noonu daal di koy wàcce commencé dawalal boppam jeune bi nga xam ne sëñ bi amul jabar amul doom kooku yoonam nekku ci accident yi ngeen gis ci tali yëpp ñoo koy def mais mag wagum jëmm mi bàyyi responsabilité yu mag gannaawam xam ne bu dee catastrophe bu rëy day am mbokk kooku dina teey loolu nag moo tax ba waa ji ne ki nga xam ne daa am lu muy xalaat gannaawam rek bu ma topp ndax jihaad moom mooy joxe sa bakkan ah dogu loolu tax yeneen ci yàlla bi wax loolu léegi nag dem na ba yegsi ci dëkk bi ñu waroon a xeexe jant bi mi ngi so am na ci yeneen riwaaye yu ne dañoo bokkoon ci gannaaw Muusa alayhi salaam te xam ngeen gannaaw Muusa la yàlla faratal jihaad léegi dafa araamoon ñu xeex bi su samedi ca ëllëg samedi la mu ne yàlla téyel ma jant bi mu ne jant bi yaa ngi nii dañ laa digal digal ma ca mbokkoo nañu xam ne jant bi mbindaafanu yàlla la bu am yéeg-yéeg ci li ñuy def suuf bi ñu war mbindaafanu yàlla la sunu borom nee na yowmal qiyaama day nettali lépp luñ mës a def ci kawam am déet iza zulzilat al ardu zilzalaha wa axrajat al ardu asqalaha wa qaala al insaanu ma laha yowma idin tuhaddisu axbaaraha yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam su ma sànn séentu weer ba gis ko day wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahuma ahilluhu alayna bil amni wal iman wa salaamati wal islam wa tawfiq lima tuhibuhu wa tarda daa di ne yow weer bi day ah rabbuna wa rabbuka allah sunu borom di sa borom mooy yàlla mel ni ku yoo ak moom lu am xel kon it yonent bi ne hey jant bi yow dañ laa jox ndigal nga war a am looy dox man it damay dox ndigal jihad fi sabilillah yàlla yàlla na ñu ko téyal bañ ubbi dëkk bi suñ borom yàlla bloqué foofu la nga xam ne mooy temps ci kattanam da doon suuf bi mooy def rotation ba tax jant bi jële woon gannaaw leneen loolu beneen mbir la ala kulli xaal yàlla téye na temps bi foofu jant bi nangootu la déplacé mu jihaat jihaat ba gañe dëkk bi dajale mboolem lañ fa gañee ca bu jëkk bépp yeneen ti mosan jihaad ba gañe day dajale ngañaay yépp safara jóge kaw asamaan ñëw lakk ko i ngi noonu safara jóge kaw asamaan ñëw lakk ko yóbbu yeneen ti bi dajale na ngañaay yépp safara bi ñëwul ñu taxaw taxaw safara bi ñëwul mu ne ay yéen mbooloo mi am na ko sàcc ci yéen ci li ñu gañe léegi képp kenn ci yéen xeet bu nekk mooy yéen pël yi yéen tukulóor yi yéen séeréer yi yéen jaago yi ku nekk xeet bu nekk na am ku ñëw jaayanteeg man loolee la yonent bi jëflante ngireem yàlla won ko ana kan moo sàcc ngañaay bi ba tax sa war a lekk ko mi ngi noonu
فلجقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلو فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه الخليفات جمع خليفة وهي الناقة الحامل
gis nañu ne yonent bi lan la mujj wax na képp ci kenn ci yéen génn jaayante ak man ngir xeetam فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم غلول benn loxo ca góor ña doon jaayante tafu ca loxo yonent ba nanguwul teggeeku mu ne ko kon ñi sàcc ci sa giir lañu bokk fal yu bàyyi ani qabilatuk na ñëw jaayanteeg man seen waa giir yépp fa laziqat yadu rajulayni aw salaasa bi yadihi noonu la kolee loxo ñaari góor wala ñett ca loxoom fa qaala fiikumul xulul mu ne yéen ñett ñii ci yéen la nekk càcc gi fa jaa'u bi ra'sin misli rasi baqra min zahab noonu la ñu indee benn bopp lu mel na bopp nag ci or fa wada'aha mu teg ko ca biir ngañaay ya fa jaa'at naar fa jaa'at naaru fa akalatha noonu la sawara ba ñëwee lekk ngañaay la fa lam taxil al ganaimu li ahadin qablana yonent bay wax sallallahu alayhi wa sallam musul dagan ay ngañaay ñeel kenn jiituñu thumma ahalla allahu lana alghanaim waaye gannaaw ba yàlla daal di ñuy daganal gañaay yi lamma raa dafana ba mu gisee sunu lompañ wa ajzana ak suñu lot fa ahallaha lana mu daal di koy daganal ci ñun moom lay wax ne al xalifaat comme ni ñu ko waxee ci gannaaw mooy al naaqatu xaamil mooy gilem bu jigéen boo xam ne dafa ëmb ala kulli xaal kon mbokk yonent yi bi ne kaay leen ngeen jaayante bi ñuy jaayante ku ñëw rek teg sa loxo teg yi dem ba baa benn waay ñëw teg loxoom rek loxo bi ne kat ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ñu sàcc ci seen giir lañu bokk ñu sàcc ci seen giir lañu bokk ñu dajale famille waa jooju giiru waa jooju ñoom ñépp ñu ñëw di teg seen loxo ci loxo yonent bi ba mujj rek am ko teg loxoom loxoom nanguwul a teggeeku ñeneen ñi jàll ñeneen na jàll bekka na ñëw teg loxoom loxo ba teggeekuwul ñii na ñaar la wala ñett ñeneen ñépp jàll ba mu des ñooñu yonent bi ne leen yéen ñii yéen a sàcc li tey sawara bi lekk li ñu ne ah kay wax nga dëgg doog a dem génne benn bopp or bu mel ne bopp nag bañ ko génnee teg ko ca lañ gañe rek safara jóge kaw asamaan lakk ko yóbbu gis ngeen loolee mbokk mu ñuy jàngal lu jëkk mooy yonent yàlla yi xamuñu woon kumpa yonent bi xam na ne ne am na ku sàcc mais xamul kan la ba yàlla subhanahu wa taala moo ko wax yu xamal ko loolu ba mu defee loolu la it doog a gis ñu sàcc te loolu it lu bari dal na suñu yonent alayhi salatu wasalaam ay mbir yu xew wër ko ci xamul woon mbir bi lu ci nekk ba ci gën a siiw mooy xadiya suñu ay Aïcha ba ko naafiq yi jiiñee ak njaaloo yonent bi alayhi salaam xamu ci woon dëgg la ak du dëgg gannaaw loolu bokk nit luñ ciy dégge mooy julit war nay bàyyi xel boppam fu mën a toll ci pexe seytaan xoolal ñi nga xam ne ànd nañu ak yonent yàlla génn jihaad fi sabilillah mais teewul bi ñu gisee alal seytaan not na leen ba bëgg-bëgg alal bi tax nañu sàcc or boobu denc ko te lañ ko waroon a boole lii ñu yóbbu ko ca loolu it daloon na lenn ci sahaaba yonent bi yal na yàlla yërëm leen mas nañ ñëw naan diw shahid diw shahid diw shahid ba am kuñ ne shahid yonent bi ne leen déedéet ah mais dafa dee yoonu yàlla yonent bi ne demee ngeen xool ay bagage am bañ demee fekk ma nga sàccoon benn susu mbubb boo xam ne amul benn valeur loolee kon ñu gis ne jaamu yàlla bi foo mën a toll ak loo kawe kawe del bàyyi sa xel di seet sa xel balaa seytaane di la yàqal gannaaw ba yonent bi alayhi salaam ne yàlla bi mu gisee na ñun xeetu yonent bi dañoo lompañ te dañoo lott ci lu bari yàlla daganal ci ñun la nga xam ne mooy ngañaay yooyu te yéen a ngi fàttaliku ghazwatu badr erreur ba nga xam ne daloon na fa lu bari ci sahaaba yi yonent bi ne leen woon bu leen wàcc ak lu mën a xew bañ gisee gaa yi xëccoo ngañaay ya dañoo wàcc loolu la yàlla xam ci sunu xeet moo tax yàlla far daganal ñu ganaay ngañaay yooyu nga xam ne sawara moo daan jóge asamaan lekk ko su ko defee yow jullit nga am ci jihaad fi sabilillah waaye amaale ci it alal mi ngi noonu amaale ci it alal loolee kon ñu gis ne moom la yonent bi alayhi salatu wasalam wax ne musul dagan benn xeet yàlla may leen loolu amma ñun yàlla subhanahu wa taala may nañu lii li tax waaju dugal ko ci baabu sidq moo di ne ne ñii dañoo fen ci jëf am déet yonent bi nee na indi leen lépp lu ngeen gañe ñu dem indi lépp jóor kon mel na ne ñoom ñëpp wax nañ dëgg indi nañ seen gañaay ndekete am na ci ñaar wala ñett yoo xam ne am lu ñu làq ci pet ñooñu fen nañu fen bi ñu fen di feñu wax waaye fenu jëf la ñu fen loolu tax nit ki dafa war a dëggu ci waxam dëggu ci ay jëfam kon ñu jël xadis bi mujj insha allah
أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق عليه
xadis bi ci mujj ki ñu koy nettali mooy xakim ibn xizam qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam albayiaani fi lxiyaar ñaari jaayantekat ya day ñi ngi ci ak tànn maa lam yatafarraqa fi yëg teqalikoo wuñu fa in sadaqa wa bayyana bu ñu dëggoo ñu leeral buurika lahuma fi bayihima ñu barkeel ñeen leen ci seen njaay ma wa in katama wa kazaba suñu nëbbee ñu fen muxiqat barakatu bay ihima yàlla day daal di màbb barke seen njaay ma lii kon mbokk day wane ne ñaari nit bu ñuy jaayante kaay ma jaay la portable bi ñu waxaale ba juboo tant que teqali ko wuñu kii jaar fii kii jaar fii kii jaay am na droit ne am sa xaalis bàyyi naa ki jënd am na droit ne jox ma sama xaalis bàyyi naa amma bu ñu xisee ba teqali ko loolay amatuñ ci droit lu dul fekk ne ñoo ko chartoo woon lu dul fekk ne ñoo ko chartoo woon jaay naa la portable bi demal nga xool ko fii ak une semaine ila axiri loolu moom yéen a ko chartoo mais bu dee charte amul jaayante ngeen su boobaa bu ngeen teqali koo jeex na léegi nag yonent bi alayhi salaam nee na jamono bi ñuy jaayante su dee ne dañoo dëggu leeral lépp loo xam ne am na ci mbir mi sawaun kiy jënd sawaun kiy jaay ca rawatina nag kay jaay leeral lépp loo xam ne nekk na ci njaay mi ka nga xam ne day jënd it fës yéenee jox waa ji njëggu mat sëkk jubluwu ci nax ko benn yoon su boobaa yàlla subhanahu wa taala day barkeel njaay moomu amma ñépp ñuy jaayante waajay jaay la muy jaay xam ne ne ayib mi ngi ci mu daal di cay fen nëbb ayib boobee loolee ab oto la booy jaay wala kër la gooy jaay ñoo xam ne dañuy gis kër guy waaj a màbb ñu ñëw daax daax fii peinture ko bam na boy woote jaay ko fekk ku ko jënd jënd nga loo xamul yonent bi alayhi salaam nee na la nga cay jële yàlla du ko barkeel abadan ka nga xam ne day jënd it fexe ba nax ka nga xam ne moom lay jënd jëndee ci ay wax ba jël la mu jël loolu it yàlla du barkeel mbir ma su ko defee mbokk wolof yi dañuy wax wax joo xam ne ku ne da koo war di bàyyi xel mooy bari le barkeelu ko gën am déet bari le barkeelu ko gën doomu aadama am nay million yàlla barkeelu ko mu mujj nekk fitnaam mujj nekk lu muy fajoo lépp mujj takk mujj yàqu doomu aadama am lu néew yàlla barkeel ko mu jëriñu ci jëriñaate ca loolee lan moo la koy may mooy dëggu ak sellal yal na yàlla wërsëgal ñu dëggu cay sellal yal na yàlla moytu loo ñu musal ñu ci lépp loo xam ne ay war laa ki wurujëki fen wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad